bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi ak yéen ci jotaayu alquran fii ci Dakar Buzz ku xam na ne ñu ngi ci weeru koor Ramadan weeru koor gi nag bu ñëwee. Euh, dañuy émission bi day gën a innové maanaam dañuy indiwaat yeneen yu bees yoo xamante ni bii ci weeru koor gi lay doon tey nag ñu indi leen xissa yonent yàlla Yuusuf ñu bëri bëri na luñ koy suivre mais ñoo xam maanaa yi nekk ci biir ak kan mooy yonent yàlla Yuusuf ak saar bi nga xamante ni bii yàlla wàcc na ko ci moom moo tax tey xam naa dañuy ñëw ak oustaz ci suraat boobu nga xamante ni bii mooy suratu Yuusuf incha allah di ko nuyu bu baax oustaz salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, Cheikh Amar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la baalu àq te di la ko baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul suñu jàmm yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar amiin amiin waaye tamit kadaalika maa ngi nuyu soxna Amina mm-hmm. di ko jaajëfal bu baax di ko baalu àq moom it macha allah mm-hmm. di nuyu ñi ñuy suivre ñëpp ci réew mi ak bitim réew mm-hmm. di leen baalu àq di leen ko baal di leen ndokkeel ci weeru koor bu tedd wii nga xamante ne nii yàlla subhaanahu wa taala moo ko barkeel mm-hmm. yàlla subhaanahu wa taala moo ko yékki mm-hmm. yàlla subhaanahu wa taala moo ko teddal mm-hmm. weer la woo xamante ni nii ci daje yëpp kenn mënu koo wax ndax bari gu mu bari doy na ci rek ñu ne alquran ci la wàcc alquran mii nga xamante ne nii moo waral suñu émission bii di jotaay alquran téere bu tedd bi téere bu sell bii ñu ni kañ la wàcc ñu ni mu ngi wàccoon ci weer wii ñu nekk mm-hmm. kon mën nañ ne anniversaire am dikkaat na moom mm-hmm. alquranul karim ñu war koo jàng xam lan la ci yàlla wax bu fekkee ay ndigal la ñu jëfe mm-hmm. bu dee ay tere ñu daal di bàyyi bu dee fu mu ñu orienté ni ñu jaar leen foofee ñu daal di fay jaar bu ñu nettalee ñu jàng leen ci ñu daal ciy jàng mm-hmm. looloo waral ba tey jii ci koor gi incha allah comme ni nga ko waxee mm-hmm. ñu dugg aw saar woo xamante ne nii mm-hmm. histoire la dafay nettali su ko defee bu ñu paree ñu am yuñ ci mën a tiire mañ cee jàng parce que alquran wala yàlla amul jotug di ñu nettali ay jaar-jaar nii kase yaa ngi dégg pare ngir ñu kontaan reetaan déedéet. Mhm. daf ñu koy nettali pour ñu jàngat ci ah. Mhm. yow mu ngi noonu kon macha allah jazakumullahu xayran. macha allah nuyoo am na solo yal na yàlla barkeel te nangul ñu suñu koor oustaz incha allah. Euh, soxna si ñu ngi ne ziar. aouzu billahi min sheytaani bismillahi rahmaani rahim. rabbi shahri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mhm. Euh, damay nuyu oustaz yi ma bokkal plateau bi. di nuyu internetu Dakar Buzz Euh, di leen baalu àkk di leen baal àkk si weer bu sell bi mhm. euh, di ñaan rek weer bi yàlla nañ ko jeexaleeg alhamdulilahi rabbil alamin di leen dalal si seen plateau jotaay mhm. alquran incha allah yaa na yàlla barkeel mi ngi naan mi émission jotaayu alquran euh, di leen gën a ndokkeel ci weeru koor du yàq yàlla na ñu yàlla nangul suñu koor di wax allahuma taqabal siyaamana wa qiyaamana wa rukuana wa sujudana lépp loo xamante ni bii ñaan nañ ko ci weeru koor gi rek yàlla suñu borom nangul ñu ko parce que weeru promotion la weeru alquran la euh, ba tax na dañuy dugg ci suraat bi mooy suratu yusuf oustaz suratu Yusuf nag bëri na ñoo xam sax dañ koo bëgg maanaam mm. dañoo bëgg saar bi ci boppam dañ koo bëgg mm. Mm. Euh, mu nekk suraat bu am solo incha allah foofu la ñuy tàbbi tey ci xisa Yusuf macha allah Cheikh Amar mm-hmm. euh, loolu nga wax moom moo mm-hmm. Mm-hmm. yàlla daf mel daf ko daf ko daf ko def si xolu nit ñi dëgg la ñi dañoo bëgg xisa bi nit ñi dañoo bëgg même Youssouf sax même bu ko sax boo ko waxee Youssouf ndeysaan macha allah euh, dañ koy bëgg dañ koy bëgg déglu saar wi mu nekk saar woo xamante ne nii borom xam-xam yi wax nañ ni benn yoon la wàcc. bi maanaam xam nga da gis ay saar yoo xamante ne day jékki-jékki am partie bu ci wàcc arrêté partie bu ci wàcc arrêté. waaw waaw di ko boole. Mhm. Yuusufa benn wàcc la wàcc. Hmm. benn saar yëpp benn lumu. dëgg la lañ ko jox yonent bi. Hmm. sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. Euh, xam nga loo xamante ne nii mu ngi xewoon avant yonent yàlla Moussa yàgg na. loolu Yuusufa kenn ay ay ay siècle siècle la ci ginnaaw. yaa ngi dégg. dëgg la loolu. Mhm. boo ci bëggee dugg ci ay mbir yu la ci alquran waxul. Mhm. werante yi def cay bari. dëgg la su ko defee comme que ci taay alquran lañ wax. Mhm. nañu yem ci texte yi. dëgg la jàngat ko. orienté ci nit ñi. ndax alquran lu mu la nettali rek loola njariñ la. loolu mooy li wér sax. alquran lu mu bàyyi loola amul solo. yaa ngi dégg. kon loolu mu nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la. fi may waxe nag. mooy. Euh, parce que mentalité nit ñi dem euh, bi maanaa dafa garaaw. waaw xam nga bi ma ne alxuraan lu mu bàyyi loolu amul solo. Mhm. te baqara banaa si doo fa gis ñeenti rakkay tisbaar. Mhm. alxuraan indi ko te moo ñu julliloo kenn dana ay eh, alxuraan bàyyi na loolu. Mhm. mais fi may waxee mooy. ci côté ay xissa histoire nit ñi histoire lan moo leen sonal. da nga gis kenn nga nettali ko benn xissa ci alxuraan. mu la ciy posé yeneen question masalan asxaabul kahfi ñi ñi demoon ci gorol ba daal dafay dugg mm-hmm. àndoon ak benn xaj yàlla ne àndoon nañ ak benn xaj mm-hmm. wa kalbuhum baasitun ziraa'ihi bil wasit mm-hmm. jeexul benn waaye lay topp xaj bi daal ñuulal wala daa soxlaa la woon wala xaw la nag la xaj bi soxor kay la <laughs> yaa ngi dégg <laughs> waaw bi maanaa am na mbir yoo xamante ni nii euh, daf ñuy gën a lëntal maanaam taaw yi daal mooy taaw yi rek jaaroon nañ fi jaar jaaru yent yàlla Moussa yaa gis ko la topp waaw Euh, Moussa sërëm bu nu mu tuddoon. Mhm. ndaw sa. Mhm. comprendre nga nu mu tuddoon. Mhm. ah aywa kan moo doon yu question yoo xam te ne nii amul benn solo boo xoolee. papa yi yéen Ibrahima yàlla nee na ci alxuraan azara meedu azara. kalla yooyu yooyu noonu jaru ko ah. su ko defee Yuusufa dinañ leen allah bi ci nettali bu rafet. ci texte alxuraan bi euh, ba nga xamante ni di nga comprendre. boo xoolee yàlla subhaanahu wa dafa wax ni. benn bis. Mhm. Yankub dafa toog. dëgg na Yankub mooy papa Youssouf. ay mhm. léegi Yankub kan moo ko jur. Mhm. Isxaq Isxaq. Isxaq kan moo ko jur. Ibrahima bàyyi leen xel bu baax. caalaa la Ibrahima. moo jur Isxaq. Isxaq jur Yankub. Yankub jur Youssouf. moo tax yent bi nii bu ma gisee kenn di bàkkoo askan. ay ree daf may jàpp noonu comme noonu la ko waxee. dëgg na yow koo xamante ne nii yonent nga. sa baay bi yonent. sa maam di yonent sa maamaat. maam di yonent waaw. waaw kon keneen mën naa taxaw fii di bàkkoo naan sama maam sàngam ak sàngam ak sàngam. bilaay ah. Eh? Mhm. moo tax bu ñu jàng boo jàngee rek. Mhm. lu baree baree baree bari mën naa am dootu la yéem. non non Youssouf dafa nekk xale bu ndaw. Mhm. gént gis loo xamante ni nii lu lu lu doy waar la. lan la gént lan la gis. moom mooy euh, dafa yeewu ci ay nalaw. daa jubal ci baayam mhm. ni ko papa man de am na lu ma gént mhm. am naa lu ma gént de papa ji ni ko lan la mhm. mu daan ko man daal damaa gént onze biddiw ak jant bi ak weer wi ñu may sujjóotal ñoom laa gént onze biddiw jant bi weer wi ñoom laa gis ñu may sujjóotal dëgg sujjóot bi maanaam ñu koy nuyu sujjóot xam nga yàlla la ñu sujjóotal yooyu yàlla bind nag bu ñu sujjóotalee nit loolu ah yéene na de gént googu nag daal di koy def problème mu daal di koy wax ki nga xamante moom moo di papaam ji daal ni ko sa gént gii bul ko wax say frère gént gi bul ko wax say frère waaye nag ginnaaw bi ko leeralee li nga xamante ni nii moom la gént gi di firi parce que léena ko yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka ala ixwatika fa yakiidu laka kayda inna shaytaana lil insaani aduwwun mubiin waaye wa kadalika yajtabiika rabbuk wa yuallimuka min ta'wiili al ahaadiis wa yutimmu nicmatahu alayka wa ala aali yaquuba kama atammaha ala abawayka min qablu ibrahima wa isxaaqa inna rabbaka alimun hakim mhm. foofu la ko ko firile mhm. ni ko yàlla daf laa tànn mission ba sa maamaatu maam commencé woon muy maam Ibrahima. Mhm. après doomam jël ko Ishaqa yàlla dugal man mii ma jël ko yow Yuusufa yow mii yaay jël mission bi yow yaa koy continuer. Mhm. waaye nag xoolal damantal ci kaw. laa taqusus ruyaaka ala ixwatika ndeysaan laay ji saa yoo ci excès Amar. Mhm. ay réew damay jàpp benn waaye dañu jàng alxuraan. waaw daal di eh, pour wax ne la alxuraan lu eh, mu nu mu rungee. di mu duggantee. nu mu duggantee mu bi. qaala yaa bunayya laa taqsuru yaaka ala ixwatika fa yakiidu laka kayda wa akiidu kayda fa makilil kaafirina amur <laughs> wayda waaye saa yi kii ko saa waay fa mu jugee fa mu teel a mu jugee fa mu def xam nga alxuraan dafa niroo. waaye kii du kayda bu ne fa yakiidu laka kayda <laughs> inna shaytaan xam nga ma tëb fii mu daal ni wa akiidu kaydaa mhm. ba pare daal ni fa mahilil kaafiriina amhiilhum ruwaydaa <laughs> ruwaydaa ndeysaan mhm. mu nekk lu lu lu reeru maa liiroon ci benn téere xamatuma sax téere bi nu tudd wallaahi mhm, benn xissa ah? benn waay bu doon iddaani woon dafa mokkal alxuraan <laughs> benn la wax loolu rek paa bi ndej ko nee na subhaanallah <laughs> dégg mu ngi noonu kon Yuusufa gént na dëgg la bi mu géntee mu wax ko papaam papaam daal di koy firil gént gi. Mhm. ba pare daal di ko yow la yàlla tànn pour nga eggale mission bi. Mhm. may nag bul ko wax say frère say doomi baay. Mhm. loolu la koo wax. yàlla subhaanahu wa daal di wax nag ni. ay yéen jullit ñi. déglu leen. lii nga xamante ne nii moom moo di jaar-jaaru yonent yàlla yuusufa ak baayam yuusufa ak i frère am na ay jàngat. am na ay kéemaan yu rëy rëy yu ci nekk yoo xamante ne nii jar na ku nekk déglu ko jar na ku nekk jàng ko ndax loolu moom moo koy jàppale ba mu xam naka lay dunde fii ci kaw suuf ba mu xamit kasalika naka lay jëflantee ak ay nitam ay mbokkam wala ay rakkam wala nit ñi loolu mooy li nga xamante ni nii moom la yàlla subhanahu wa taala wax laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatun lissaailin mu mel ko wax yàlla wax ñu ko lan la mu id qaala ah? yusufu id qaalu la yusufu wa aquuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin allahu akbar fi problème bi commencé mooy yéen yàlla yusuf ay frère dañ ko commencé jéppi commencé koo iññaane commencé koo mere lan moo waral loolu ginnaaw bi yuusufa nettalee papam jënt gi papa ji dafa gën a bëgg yuusuf wallahi lii islaam tere tey moom la tere woon démb papa yuusuf gënaalewul yuusuf ci ay doomam waaye maadaama xam ni kii moo yor secret bi kii moo jël ndono li mhm. xaaral ma gën koo fonk gën koo sàmm gën koo téye loolu moom moo waral nag mu dem ba ndeysaan taqali ko ak sagom ci loolu dëgg la ndeysaan jël yuusufa foo ko fekk di ko teg ci wetam ngir bañ mu dugg ci yenn yi mhm. ngir bañ mu def yenn yi ndekete frère yi ñu ngi gis loolu kon frère yi ñoom ñu ngi commencé soxor mhm. commencé iñaane ki nga xamante ni nii moom moo di yuusuf loolu nag ñu daal dem ba wax lan e ñoom ñu daal dajaloo daal di wax ne dañu yore yuusuf mhm. dañ koy rey wala ñu jël ko sànni ko génn ko dëkk bi yëpp bu daan dem aw itrahuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum hmm. wa takunu min baadihi qawman saalihin allahu akbar mbokk yi borom xam-xam yi ndeysaan ci seen seetlu hmm. nee nañ xoolal même frère yi hmm. dañoo bëggoon a nekk ñu baax xam nga mën naan wa takunu min baadi qawman saalihin pour ngeen nekk ñu baax mais iñaan soxor bu xësee bu dugg ci yow. dina la yàqal lu bari. wallaahi yaa ngi dégg. Mm-hmm. te ñoom iññaane Yuusuf moom moo leen yóbbee woon ci li nga xamante ne nii moom lañ dugg. Mm-hmm. léegi nag ñoom ak seen papa. ñoom ak Yuusuf ñu commencé di ko dóor ci kër géeg mm-hmm. di ko soxore yu bari yoo xamante ne nii yenn téere yi sax nettali nañ ko. donte ko comme li ma waxoon rek. nañu yemandi ci aaya yi. après du ñàkk. dinañ leen gën a nettali nag yeneen yoo xamante ne nii wax nañ ko. su ko defee xista bi mën a complété wu. waaye li ci alxuraan joxe rek. doy na mhm. yàlla subhaanahu wa taala daal nee na mhm. yuusufa bi mu géntee génte gi wax ko baayam mhm. baayam firil ko ko daf koo jox conseil nee na ko sa gént gii na fexe nag ba bul ko wax say mag bis boo leen ko waxee dinañ la pexeel te seytaane seytaan dafa garaaw ci nit seytaan dafay dugg ci ay diggante di ko yàq seytaan dafay yàq diggante ay mag ak ay rak ay ñu bokk baay mbaa ñu bokk yaay seytaan dafa gaaw ci seenu diggante loolu na ngeen ci bàyyi xel loolu la wax ki nga xamante ne moom moo di Youssouf mu daal dem waaye gis nga boo xoolee alquran ni mu la nettalee. Mhm. dafa ñëw rek daañu la frère yi commencé nañoo wax naan suñ papa daal Youssouf la gën a bëgg. iz qaalu la Youssouf. wa axuuhu ahabbu ila abina minna mhm. wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin yaa ngi dégg. Mhm. ban lan lañ teg uqtulu Youssouf. allahu akbar kenn ci ñoom daan nañ ko rey. sarak yaa dégg sarak joo bokkal benn bàyyi bëgg ndono tax na nga daan koy rey te gis nga yooyu noonu moo fi xew ba léegi waaw ay nit a ngi rey ay nit ngir la ndono billaah ba léegi man bu gën a dee laa dégg sax yaay gis ku dem wutal nit kuy dund certificat bu wane ni moom dee na waaw certificat la dese am na ku ko wutal te muy dund dem ngir lan ngir lan yaa ngi dégg wutal ni certificat de décès pour lan pour jël alalam te nit kooku deewul wala exemple nga gis fenn foo xam te dañ fay joxe ay ndimbal nga wutal sa jëkkër certificat de décès bu ko defee jël seen doom yóbbu leen foofu jàpp leen ay orphelin leen yegg nañ foofu. yooyu yëpp muy fi. waaye li ci yéeme mooy lan doomu aadama dafa lu ñu tuddee mhm. muy bëgg sa bopp. wallaay waaw bi maanaam bëgg sa bopp gi nag yóbbi la ba ngay lor ñeneen ñi. loolu mhm. al ananiya. Mhm. bëgg sa bopp kenn bañu ko. mais li bon mooy. da ngay compter day bëgg boppam bay loolaale nit ñi. al ayshu wal xayaatu ala xisaabil axarin mm-hmm. mooy di dund ci compte ñeneen ñi bi maanaam yow yow daal dundal mais bu diw deewee baax na. Mm-hmm. sa yoon nekku ci. Mm-hmm. kon boo xoolee yàlla subhaanahu wa taala loolu la ñu nettali. wax ni nag ginnaaw bi ñu waxee loolu nag ah am ci seen biir wax nañ ni taaw bi la woon. seen mag daal di wax ni bu leen rey Yusuf Yusuf moom buñ ko rey laa taqtuluhu yaa dégg qaala qaa'ilun minhum laa taqtulu yuusufa wa alquuhu fi xayaabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyaarati in kuntum faa'ilin yaa ngi dégg li nga xamante ne moom la ko wax moom mooy bu buñ rey yuusuf buñ rey yuusuf waaye nañ ko jël sànni ko ci benn teen buñ ko bi caravane yi romb dafa ñu daan tukki ay commerçant bu ñu ñëwee dañuy soxla teen yi ndax soxla ndox bu ñuy root mën naa am dinañ ko gis daal di koy jël jàppe ko ab jaam daal di koy yóbbu wala nañ ko dencandi en attendant ci ab teen ba ab caravane ñëw te loolu lañ def sax nag dinaa ci ñëw mhm. loolu lañ def ñëw dañ koo dencoon ci biir teen bi mhm. dañ ko jël dugal ko ci biir teen bàyyi ba benn bis nag benn caravane daal di romb mhm. caravane boobu nag bi mu rombee ci lañ ñëw daal di leen ci suñu jàmm la yaa ngi dégg daal di koy jaay gis nga kon frère yi boo xoolee ñoom ay mbokkam Yusuf ay mbokkam ñoo ko jaay def ko jàmm ñoo ko jaay ñoo ko jaay ñoo ko jaay ci njëg gu yomb njëg gu tekkiwu dara yaa ngi dégg waaye loolu lépp amalu leen yitte lan moo leen amalu leen yitte utruxuhu ardan yaxlu lakum wajhu ko moom daal nañ ko sànni fa fareen muraadi dem allahu akbar bi loolu amee nag lan lañ pexe pour teg ko ñu booloo ñoom ñëpp daal di ñëw ci seen papa daal di ko qaalu ya abana malaka laa tamanna ala yusufa wa inna lahu la naasixun allahu akbar ñu daal di ko ñu de dañoo bëgg suba dañuy fawi mhm. suba dañu war dem ci àll ba fawi ci mhm. dañoo bëgg nga bàyyi Yuusufa mii mu ànd ak ñun yaa ngi dégg mhm. seen papa daan ni leen ah seen papa ni qaala inni la yaxzununi an tadhabu an yakulahu dhibu wa antum anhu gaafiluun ko waxee arsilhu maanaa xadan yartan wa yalab la naasixuun yaa ngi gis seen papa leen noo wóorul bàyyi leen ko fi damay bañ bu demee bukki lekk ko xam ngeen ni mos ah foofu mas naa dégg benn borom xam-xam di wax ni foofu dafa bëggoon prétexte rek bu mu jaar pour bañ leen koo jox ah waaye xam na ni loolu du am mm-hmm. ndeysaan ñoom yi ñu tontu seen papa daan ko papa def ko occasion def ko occasion yaa ngi gis moo tax am na ñoo xamante ne nii ñooy may seen noonu fu mu jaar pour rafaat leen waaw gis nga gis nga la mu leen waxoon ni leen da ngay bañ bukki lekk ko ñoom bañ ñëwee la lañ ko wax bukki lekk na ko mhm. yaa ngi gis kon tarisaay sa noonu yaa koy may bunt mhm. moo tax ñuy wax ni nit war sa bëri wax waroo toog foo toog di wax mhm. ki nga xamante ni ni wóoluwoo ko bul ko wax sa yenn yi parce que yi nga koy wax ci yooyu lay jaar surtout jigéen ñi dañuy am problème ak seen jëkkër fu ñu toog di ko wax di ko wax seen xarit yenn yi su ko defee nag xam ni kon kii mu ngi ci ay surtout nag bu ñu xamee ne kon ndekete yoo kii jëkkëram nekkul ci jàmm. nga gis xale bu jigéen bi jaar ci ginnaaw nag daal di utiliser occasion boobu. mën naa am mu nangu sa jëkkër ci sa yox ah. yooyu am na fi. Ah. su ko defee yooyu yu jar a bàyyi xel la. Mm-hmm. après. Mm-hmm. ñoom lan lañ ko wax. Mm-hmm. qaalu la in akalahu zibu wa nahnu usbatun inna idal la xaasiruun dan ni ko yow papa ñun ak suñu doole ñun ak suñu mbooloo yaa ngi dégg ah? bu ñu sàgganee ba yusufa mii bukki di ko lekk kon bu boobaa ñun ñun perte nañ ñun perte nañ waaye boobu yëpp ñu ngi teg li nga xamante ni nii moom moo di dil pour lan yóbbu ki nga xamante ni nii moom mooy Yuusuf pour daal di koy fàtt macha allah xista bu neex la waaye comme que yàlla daf ko def ay pàcc-pàcc teg leen foofu seen baaraam bu ko defee bii di ñëw nag ñu daal di leen di commencer ak yéen xale yi mujj nañoo jël Yuusufa daal di dem ak moom fan la wànnante mujj ak ay gëtëm waaye yàlla li mu ñu jot a jox foofu pour yéen ñii seetaan mu tënkaatal leen ko yuusufa yeewu na ci ay nelaw gént gis na ni onze biddiw ñoo ngi koy sujjóotal ak jant bi ak weer wi wax na ko pàppam papaam nee na ko yuusuf lii nga gént bul ko wax say frère boo leen ko waxee dinañ la pexeel boo leen ko waxee dinañ la pexeel te seytaane dafa aay ci ay diggante kon na moytu bu baax a baax a baax après yàlla subhaanahu wa taala nee na kaay ma nettali leen nag lan moo xew mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. kaay ma nettali leen lan moo xew mm-hmm. laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatun lissaa'ilin lan la ñu yàlla nettali nee na frère yi xëy nañu xëy commencé ku nekk di wax naan sama papa yusufa la gën a bëgg ko ñun kii il faut ñu jug ci ay mbiram am ñu ni nañ ko rey am ñu ni noonoo bu ñu ko rey nañ ko jël sànni ko mu daal di sori suñu papa du ko gësati bu ko defee ñi ñu nekk ñu ñu nekk ñoo xamante ne nii ñun la suñu papa di favoriser ci kanamam loolu bi mu leen ko yóbbee am na ku leen wax ci biir mbooloo ma seen mag lan loolu la ñu wax nee nañ moo ne leen bu leen ko rey waaye nañ ko jël sànni ko ci benn teen dencandi ko fa en attendant bu benn caravane rombee ñu jël ko jox leen ko ñu daal di koy yóbbu Yuusufa nekk ab jaam te ñoom noonu la ñu mujj def après ci seen waxtaan booloo nañ ñëw ci seen papa ni ko papa dañoo bëgg wusuwaa ñu ànd ak Yuusuf mm-hmm. arsilhu maanaa xada mooy yàlla am yaa ngi dégg suba la ñu bëgg ànd ak moom dem fowi dàqante yaa ngi dégg ba ngoon ñu ñëw seen papa ni leen bu ma sañoon daal ngeen dem bàyyi li ma fi Yuusuf ndax damay bañ bu ngeen demee ci àll bi di dàqante ba sàggan bukki yi lekk ko mhm. ñoom ñu daal di ko papa nag wax fa dëgg yàlla ñun en tant que mbooloo mhm. bu ñu toogee seetaan ba suñu rakk ji bukki di ko lekk mhm. kon wax fa dëgg yàlla ñu daal di perte ah seen papa jox na leen Youssouf wala hmm. joxu leen ko. Hmm. mujj nañoo dem wala demuñu. Hmm. teg leen foofu seen baaram incha allahu. tabaraka wa taala. macha eh, allah bismillah. macha allah yal yàlla barkeel. di wax ne doomu baay lu am solo la. Eh, eh. nañ ko gën a fonk. am na ñoo xamante ni bii seeni parents buñ génnee àdduna rek lañ xam dañuy xam dëgg dëgg dëgg valeur bi. lan la parce que souvent nga am ay doomu baay yoo xamante ni bii ñoo lay féete mag ñooy war a yor kër gi war a yor njaboot gi waaye duñ def loolu yëpp. ñoom lu ñu duñ xëccoo xaalis ba ak miraas bi xool ku nekk dal ngay gañe ci loolu nañ ci jànge bu baax ci xissa yuusuf bi ci aaya bi yàlla wax laa taqsus ka ala ixwatika fa yakiidu kay kaydaa mu respecté loolu nag parce que lii nii ndigal la buñ ko jox ndigal bi xëy na paa bi am na lu mu doon jàpp li nga wax sànq nag ni lam leen waxoon ni leen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 baqara ali imran nisaa i da lan am la lan fal taw ba yunus huut ba yuusuf mii aaya yooyu yépp ah mooy téere bu leer mooy aaya ju leer ji nga xamante ne nii moom laa leen jox alquran li ci nekk lépp a leer alquran li ci nekk lépp a rafet xissa bii ma leen di waaj a nettali ay aaya yoo xamante ne nii ñu ngi ko bind ci téere bu leer téere boo xamante ne nii amul benn sikki sàkka zalikal kitaabu laa rayba fiihi ah fii mu naan ni tilka ayatul kitaabil mubin téere boobu mu la waxoon laa rey ba fii mu ngi lay waaja a nettali nag ay xissa xissa goo xamante ne nii tamit laa ba fii kon xissati yonent yàlla yusufa laa rey ba fii laa rey ba fii te nekkoon ca baqara bu yusufa it laa rey ba fii xissa bi ngeen fii waaj a dégg insha allahu rabbi ñu leen koy nettali xissa bu am la du loo xamante ne nii Amara toog fee bind benn théâtre am jox ko xale yi baytul atfaal ñu daal di koy joué yaa ngi dégg bii daa am lu lu ñuy lu ñuy dund la comprendre nga. xam nga théâtre yi da ngay gis. ñuy joué loo xamante ne nii mën naa am benn scénario ah yaa ma gën a xam affaire yi. mu ngi noonu nag bii nag daa am. Mhm. dégg ay mhm. aywa mu ngi noonu ñu dem. inna anzalnaahu qur'aanan arabiyyan la'allakum ta'qiluun. yàlla subhaanahu wa nee na alqur'aan ji mhm. ñun yàlla ñoo ko wàcce. mu nekk alquran joo xamante ne nii ñu ngi ko def ci làkku arab waaye tamit kazalika mu nekk lu leer naññ ñuy woo nit ñi di wax ak ñoom mën naa am bu ñu leen waaree dinañ utiliser seen xel daal di yeewu bay def lu baax di wax lu baax aywa naxnu naqussu alayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayka haada alquran وإن كنت من قبله لمن الغافلين yàlla subhaanahu wa nee na ñun yàlla ñoo leen di nettali ay qissa wala ñun yàlla ñoo lay nettali yow Muhammad buñ la nettalee nga nettali saw xeet ak qissa yoo xamante ne nii qissa yi gën a rafet la te loolu insha allah rabbi dinañ ci ñëw qissa yi gën a rafet qissa yi gën a taaru ahsanal qasas xam nga lan moo tax. alxuraan en général bu kenn defee lu ñaaw du tudd turam. kenn bu defee lu ñaaw yenn yi. alxuraan ak a yàgg suturaal jigéen. ak yàgg a màggal jigéen. ci saar wii dinañ ci jàng ji. jigéen doon na sàkku góor. yaa ngi dégg mais boo xoolee yàlla tuddul turam ndeysaan. tuddul turam dafa wax rek jigéen imraatul aziz la wax. tuddul turam ndeysaan loolu. ñi bind ay théâtre ñu war cee bàyyi xel. Mhm. da ngay gis ko xam te ne dafay bind théâtre di def luy ñaaw nga koy seetaan ñu naan dañuy yeete. loolu du yeete. Mhm. yow yaa ngi réeral nit ñi. Mhm. da ngaa war a wane lu rafet. mën ngaa jàllale message lii daw ci biir kër yi. lii daw ci koñ yi te doo wane lu ñaaw. yàlla subhaanahu wa taala nee na nag yonent bi saa salaam. kaay ma nettali la. xissa boo xamante ne nii xissa bu rafet la. xissa bu neex la te mooy xissatu yonent yàlla Yuusuf. ak ay frère ndaxte xam naa ni xamoo ko woon. yaa dégg loolu mooy wa in kunta min qablihi la min al xaafilin bi maanaa mooy xista boobu loo réere woon la kaay ma leeralal la ko pour nga xam ko aywa iz qaala yuusufu li abiihi yaa abati inni raaytu ahada ashara kawkaba hmm. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين yàlla subhaanahu wa taala nee na yonent bi saa fàttalikul jamono ja yuusufa ñëwee ci baayam ni ko papa damaa gént gis onze biddiw ak jant bi ak weer wi ñu may sujjóotal yàlla papa man de lii mooy li nga xamante ni nii moom laa gis loolu nag mu nekk loo xamante ne nii lu rëy la mm-hmm. lan la ko papa ja wax قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين papaam daal di siggil ak ni ko Yuusuf loo gént nga ni mun ko papa lool loolu laa gént dama gént gis onze biddiw ñu may sujjóotal ak jant bi ak weer wi papaam daal di koy woo ci biir néeg ni ko kaay Yuusuf ba mu ñëw mënu ko gént gi bul ko musa nettali kenn kenn kenn bul ko wax say frère ndaxte kat ah seytaane dafa bëri ay pexe te mën naa jaar ci ñoom ba ñu fexeel la ndax seytaane mooy noonu doomu aadama inna seytaana lil insaani aduwwun mubin wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أبويك من كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق inna rabbaka alimun hakim yàlla subhaanahu wa mu ngi nettali nee na papa firil na yuusufa gént gi ba pare nag daan ne ko ah na nga xam ne nag yàlla daf laa tànn yow la yàlla tànn ndono la maam ibrahima um, mbir ma yor yonent yàlla ibrahima yoroon sa maam pare sa sa maam jëlaat ko ishaq man mii ma jël ko di sa bàyyi mbir mi yow mii yow yaa koy jël kon na bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax yàlla moo la tànn ngir nga éggale mission bi nga xamante ne nii moom la Yànqub yor waaye tamit kazalika mission bi nga xamante ne nii moom la Ibrahima yoroon ak sa maam Isxaqa parce que sa boroom inna rabbaka alimun hakim mm. yàlla mooy ki xam kan moo mën a yor mbir mi te moom mooy alxakim mooy kii xereñ te lu mu def xam ne ko kon yàlla bu jëlee ne tabb ko jox ko mbir nañ ko ko nangul te xam ne yàlla moo ko def gis nga heure jeex ba bu jotee même moom ma ko yàlla joxoon bu bañet dina jeex kon bu kenn amee dara bu ko ko kenn soxore bu ko ko kenn iññaane parce que lan moo tax inna rabbaka alimun hakim aywa لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين yàlla subhaanahu wa taala nee na leer te wóor te dëgg amoon na ay mbir amoon na ay jàppal bàyyil amoon na ay kéemaan yu rëy yu am entre diggante yuusufa ak ay freeram loolu nag dinaa ko wax gaa yi laaj parce que dañ ko doon posé yonent bi sa san question ndax doon nañ dégg rek yusufa yusufa mais xamuñoon xosta bi lan la mm-hmm. waaye yusufa yusufa yonent bi sallallahu alayhi wa nag yàlla daal ko koy indil daal koy wax ne ko dinaa la ko nettali nga nettali ko gaa yi bu ko defee gaa yi xam lan la yusufa dund ak fu yuusufa jaar ak lan la ko ay fereeram def loolu tax yàlla daal di wax ni laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatun lissaa'iliin wa قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ndeysaan frère ya daal wax ni ñun daal gis nañ ni euh, ki nga xamante ni moom moo di Yanqub ah suñu papa suñu papa mm-hmm. Yuusufa ak rakkam muy benn yaamin ci ñu wax ni moom la tuddoon ñoom la gën a bëgg ka ñun ñoom la gën a bëgg ka ñun ahabbu ila abina minna yaa ngi dégg ñoom ñoo gën a sam papa ka ñun ñoom ñoo wax loolu amaat dama bu ngeen bàyyi foofu xel ñoom lan lañ wax dañ ne ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin ñoom dañoo gën ni seen papa dafa jël yuusufa ak frère am gënale leen ci seen kaw mhm. te ñoom ñu nekk mbooloo màgg ñooy bay ñooy sàmmi ji ñii ay xale lañ mhm. ba pare seen papa jël ñaar ñii gën leen a bëgg mhm. mais loolu nan la mën a demee wax fa dëgg yàlla sam daal wala boog suñu papa daal lii nga xamante ne nii moom lay def du yoon dafa jéng dafa dafa dafa dafa wàcc yoon bi ñoom loolu lañ wax waaye liñ ci bëgg a wax foofu noonu la fi dara mu biin du sax ak ñàkk kersa na ngeen bàyyi xel boobu wax parce que ñoom xamoon nañ seen papa yonente la waaye dañ bëgg a wax ne rek seen papa ah fii moom dérapé na fi. Mhm. jël na ki nga xamante moom moo di ak frère am gënal leen ci ki nga xamante ne nii moom mooy ñoom ñoo ñu nga xamante ñoom ñoo bokk baay aywa. uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abiikum wa hmm. min ba'dihi qawman saalihiin la seen papa ca kaw mhm. ah? inna seytaana li insaani aduwwun mubiin ñëw na nag moo tax am nañu wax ni seytaane moo soppaliku jëmmi nit fañ toogoon fa la leen fekk di xelal moom moo leen wax ni leen rey leen ki nga xamante ni nii moom moo di yuusuf moom moo leen ko reyloo walla ngeen jël ko yóbbu ko fu sore sore sore sore sori ba nga xamante ni nii seen papa dootu ko mën a gisati am ñu wax ni déedéet ñoom seen biir kenn moo wax ni nañ ko rey ah te gis nga boo xoolee ndeysaan film yi gars yi di joué léegi ak yu ni mel boo xoolee film Youssouf bi. Mhm. ki nga xamante ne ni tey jii waa Israël ci lañ jógee ci moom. Mhm. ah wax nañ ni kooku moo proposé woon rey gi yaa ngi gis. Mhm. Euh, après affaire bi fan la mujj moom mooy ni nañ ko jël daal di koy sànni foo xamante ne ni suñ papa du ko gisati su ko defee ñun suñ papa dinañu favoriser jël ñu daal ñuy gënale aywa. qaala qaa'ilun منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة بعد السيارة إن كنتم فاعلين yàlla subhaanahu wa taala nee na kenn ca ñoom moo ni mukk kenn du fi rey Yuusuf kenn du fi rey Yuusuf loolu moom duma ko fekkee waaye lu mu bon bon bu fekkee am na lu ñuy def daal nañ ko jël sànni ko ci biir teen bi mm-hmm. mën naa am caravane yi romb commerçant yi bu ñu fi jaaree mm-hmm. ñu daal di koy jël yóbbaale ko def ko ab jaam daal di koy jaay mu daal di dem bu ko defee kenn dootu ko gisati mm-hmm. buñ demee daal bay am lu ñuy def na nekk loolu baadu ci in kuntum faailin waaw loolu la yàlla subhanahu wa taala wax aywa jamin قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون الله أكبر ñu daal di wax ni ginnaaw ba ñu dajaloowee nag daal di ñëw ci seen papa daana ko papa ñun de dañoo bëgg nga jël Yuusufa mii bàyyi ko ak ñun suba yaa ngi dégg dafa am fu ñu bëgg ànd ak moom dafa am fu ñu bëgg ànd ak moom ngir bu ñu demee conseiller ko waxtaan ak moom xamal ni ko ñun bokkuñu yaay d'accord waaye ñoo bokk papa yaa ngi dégg loolu mu nekk loo xam te nii loolu la yàlla subhanahu wa taala nettali ñoom it loolu lañu def mooy dañoo ñëw seen papa pour nax ko dañu ko papa dañoo bëgg nga jox ñu yuusufa dañ ko bëgg a lan lañ ko wax lan lañ wax seen papa mhm. arsilhu maana gadan yarta wa yalab wa inna lahu la xaafidun dañoo bëgg bu subaa daal nga bàyyi yuusufa mu ànd ak ñun dañoo bëgg a dem ci àll ba dàqante foo kaf ree ba ngoon ñu daal di ñibbisi bu ñu demee tamit kazalika na sa xel dal dinañ ko sàmm ba dara doo ko dal dara du ko wokk ñoom seen papa waxagul ñu naan dinañ ko sàmm yaa ngi dégg wa inna lahu la xaafizun dinañ ko sàmm dinañ ko protéger dinañ ko aar seen papa lan la tontu. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون seen papa daal ni leen wax fa dëgg yàlla daal dina ma diise lool la yax zunu nii dina ma diise lool may bàyyi Yuusufa muy ànd ak yéen ngeen di dem ak moom te sax damay bañ bukki lekk ko ci àll bi xam nga rek wóorul ah mu ngi noonu mooy li nga doon wax sànq rek mooy parents yi mag ñi daan ko tiitale mhm. dangay bañ bu demee ana xale yi buñ dem ci àll bi de mhm. boo fa demee ba jaan màtt la boo génnee ci mbedd mi ba xaj bi màtt la xam nga mbedd mi sax boo demee amul xaj mhm. mais da koy wax rek pour xale bi toog yaa ngi dégg wax na ni noonu la ko waxee woon moo tax mu daan leen ah dina ma dis loolu ma bàyyi leen ngeen di ànd ak ki nga xamante ne nii moom moo di Yuusuf bukki yi mën nañ koo lekk te instant boobu dafa fekk ngeen nekk koo xamante ni yéen ngi woon ci seen i caaxaan wa antum anhu غافل أيوة قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ñu daan ne ko non papa nag wax fa dëgg yàlla nag ñun ñii ak suñu doole ñun ñii ak suñu mbooloo bu ñu sàgganee ba yuusufa mii ay bukki di ko lekk nag wax fa dëgg yàlla kon kon nag ñun ñu perte yuusufa mii di suñu rakk suñu doomu ndey nga xamante ne nii yaayam ndeysaan moom rakkam jii la am génn àdduna ah, wax fa wax ju neex joo xamante ne nii ndeysaan a ah, seen papa daal am na fu mu mujj ak ñoom moom laa wax sànq nañ ci rek baaraam bi incha allah rabbi mhm. ba bii di ñëw ñu xool ba xam danañ génn wala déet incha allah rabbi mhm. yàlla yàlla barkeel wa jazakumullahu xeyran macha allah amin macha allah euh, léegi oustaz <laughs> première question bi mhm. mooy la moo tax suratu Yuusuf commencé ay xaraf comme alif laam ra ah ok. Mhm. commencement saar wi. waaw. waa Jamil. laaj nga laaj bu am solo macha allah déggoon naa la fi kado nag. joxuma <laughs> la ko du ma digal kado naa bàyyi ba <laughs> naa bàyyi ba ba ba kado boobu ñëw ba pare. dégg nga incha allah <laughs> ah. daa yàgg de kado bi kay daal mu ngi bëgg a yàgg moom macha allah. Jamil. Mhm. léegi euh, xam nga. Mhm. arab arab yi dañu doon wax yonent bi sa salaam. ni ko yow li nga ñuy wax nii. man lañ ko wala pare yàlla da lay nettali ay xista yu neex a neex a neex a neex aha surtout yàlla boo xoolee xuruf la ko commencé al xuruful muqattaa alif lam ra ndax lan moo tax day waaj a nettali xista bu yéeme gis nga mu ngay wax ahsanal qasasi xista bu yéeme lay waaj a nettali mu bëgg naar yi déglu mu bëgg arab yi déglu ak ñépp mm-hmm. mu daan leen maa ngi waaj a nettali ab xista bu yéeme de te dina leen ko nettali ci araf yi ngeen di xam alif laam raa araf yooyu ngeen di wax yéen mhm. mu commencé alif ba jeexee ha waa ya araf yooyu ci laa leen di waaj a nettali xisatu ki nga xamante ne nii moom moo di yonent yàlla yuusuf moo tax mu ne alif laam raa rek daal di dugg nag ci saa daal ni tilka ayatul kitaabil mubin pour gars yi xam ni yàlla waxul ay chinois waxul ay olof mhm. ay arab yu leer la leen di wax moo tax gis nga ba tey pour gën a dëggal li ma la wax noonu mhm. beneen aaya bi lan la teg inna anzalnahu la moo tax alif ay arafi arab mm-hmm. laa leen di nettalee li mu leen di waaj a nettali insha allah tabaraka wa taala quranan arabiyan laallakum taqilun macha allah macha allah am na solo jamin léegi deuxième question bi mm-hmm. mooy la moo nekk si gént la moo tax ñu war a gént ak euh, est-ce que loo gént rek dafa war a am dafa war a am si saa si jamin mm-hmm. laaj nga laaj bu ama ama ama am solo macha allah lan moo tax ñuy gént ak lan mooy gént gis nga doomu aadama yàlla tooñu ko yàlla dafa bind doomu aadama indi ko ci àdduna ba pare am yu mu ko araamal ay seet parce que doomu aadama yàlla daf ko bind noo xamante ne dafa dañ kumpa doomu aadama dafa dañ kumpa dafa dañ kumpa loolu am na moom dafa bëgg di xam lu ñëwagul ak yu ni mel te yàlla araamal na ci moom muy dem di seetlu samay mbir fan lay mujj waaye ci mbaaxug yàlla yàlla mooy xéewale doomu aadama yenn saa yi muy tëdd di gént ci ay mbiram par saa yi xéewal la gént xéewal la immaa nga gént lu neex su ko defee boo yeewoo nga gën a am force gën a dëgër ci li nga nekk xam ni incha allah rabbi bis dina ñëw dina baax yi soo géntee lu naqari soo yeewoo nga muslu xam ni yàlla mu lay xamal ni boo moytuwul lii mën na laa daal mën ngaa muslu nag moo tax saa yoo génte toujours dama koy wax ñiy génti lu bari bul génti lu ñàng ba tiit soo yeewoo saraxeel te bul ko nettali kenn xanaa ba mu des ki nga koy nettali pour mu firil la ko dañoo wax ni nit bu géntee lu naqari bu mu ko wax na saraxe gis nga boo saraxee daf koy fànq boo gisee yàlla di la wan lenn président ci ay nelaw mu mhm. nekkuloon te ni nii neexul pour boo yeewoo nga daal di loolu mën naa mën naa ñëw ci sa kaw mhm. saraxee boo xoolee gars yi li tax ñu muus. Mhm. boo demee ñu naan la saraxeel saraxe day dàq ay ayib. Mhm. saraxe day dàq musiba. Mhm. saraxe day dàq lu naroon a dal ci sa kaw. moo waral nga gis gisoo ñii dem ci sëriñ si ñu bëgg saraxe saraxe saraxe. nit kuy saraxe insha allahu bi yàlla daf lay muccal ci ay musiba. loolu dafa am yàlla moom moo ko def. su ko defee ci mbaaxu yàlla nag moo may doomu aadama muy gént. kon gént lu am la. lan moo waral doomu aadama di gént tamit surtout di lay Euh, lu mu ëpp lu muy xalaat. moo tax doomu aadama xanaa xamoo leen Amina. doomu aadama moo gën a mën a firil boppam géntam gis nga nit. am na nu muy gént dëgg ku muus dëgg. bu génte dara bu yewwoo toog attentivement xalaat ci gént gi xalaat ci xalaat yi yaa ngi dégg nu mën na ko calculer ak dundam xool ko ak dundam dina xam ne kat lii ma gént lii la. loolu dafay am. dafay am moo tax instant bii nii benn am na benn téere bu ndaw bu tudd al axlaam. ku ñuy wax docteur Moustapha Mahmoud moom moo ko bind. téere boobu américain yi dañ ciy wax ni daf ko faa indi nee nañ doomu aadama en général lu ëpp lu muy xalaat bëccëg gi daf koy gént. man téere boobu laa gisee affaire bu yéeme xam nga ñun fii senegal amaar boo daan gént kenn gaañu. boo yeewoo wax ko sa yaay wala sa papa dañ naan la da ngaa regub reer da ngaa regg reer en général daanañ ko wax. xaw ma yeneen dëkk yi wala. luy regg reer. regg reer mooy ah. boo reeree ba suur en général. Mhm. soo yee boo tëddee nelaw. sa biir bu feesee dëgg. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. surtout nga lekk lu niin lii ma lay wax nii ay borom xam dañ koo wax. Mm-hmm. nee nañ en général boo reeree lu niin dëgg ba pare nga lekk ci ba sa biir fees. boo tëddee da ngay gént ay affaire yu ñàng. ay affaire yu ñàng da nga koy gént. man bi ma liiree loolu ci téere bi. ba maa ngi Égypte. sama xel ni yar ci ni boo daan gént kenn gaañu boo ko waxee sa yaay danaan la da ngaa te ñun fii Sénégal. boo xoolee en général lu neen rek lañ daan reere mhm. après ma comparé ma ni ah effectivement ñii américains yi li ñu wax mën na am ko dëgg la mhm. te ma xam ne tamit adduna bi lu yéeme la mhm. xoolal olof ñun fii Sénégal loolu dañ koy wax ku gént kenn gaañu ñu ne ngaa reggub reer te xam nañ ni ñun fii Sénégal suñu aada lu niin la ëpp lu ñuy lekk lu ñuy moom la ñuy reere ah ba pare ñee wax ni nit bu lekkee lu niin tëdd dafay gént ay kawaabis noonu sax la utiliser baat boobu baatu kawaabis. Mhm. kawaabis jamu kaabuus la mooy yu ñàng. Mhm. après ma xam ni kon nekkati gént loolu ñu wax ni nag doomu aadama en général lu mu yendoo xalaat daf koy gént. Mhm. gis nga benn waykat loolu la waxoon daa bëggoon benn xale bu jigéen bu tudd Layla. waa ji waaye bëccëg yëpp Layla lay xalaat ndeysaan bu tëddee nag da koy gént. mu daal man daal saa yu ma tëddee rek Layla laay gént <laughs> nee na saa yu ma tëddee di nelaw daal mu gi ci la xamee ne nekkate doomu aadama lu mu yendoo xalaat rek loolu lay gént hmm. tuzakkiruni l axlaamu layla wa man tutif alayhi xayalaatul ahibati yaxlumi maa ngi ko jàngoon 2010 hmm. bi ñuy def euh, euh, saano yi ndeysaan oustaz bi ñu ko doon jàngal daan en général góor bu bëggee ko jigéen da koy gént rek benn élève daan ni billaay oustaz wax nga dëgg ci classe bi hmm. <laughs> waa ji <laughs> force ak waaye force kii day firi gént. bu eh. boobaa yëpp ñu ñëw. comment eh. tamit mu ne papa ji gént tey moom yow laa ko gént. Eh. mu ne ko lan la mu ne ko damaa gént nga dem màgg. tey paa bi commencé boobaa dëkk bi nag gars yi defal ko fekk quoi. mu ne ko waaye avion bi dem ba tiim kaaba gi rek. Paa da du génn day firi génn mbaadu. mais c'est vrai gars yi naa la gént day nekk contraire quoi. day nekk contraire dina am. ma gudd fan. Mm-hmm. yaa dégg waaw wala pare pare saa ñu bari dañuy gént ndox. Mm-hmm. ñu naan la ndox jàmm la mais ndox mën naa bañ a nekk jàmm. waa kër yonent yàlla ndox lu leen yàlla reye am ndox. ndox mm-hmm. yaa ngi dégg. kon gént nit ki jëmm boppam moo tax loo gën a xam fi ne nii man am naa lu ma la gën a xam. gën laa firil sa gént. am naa lu ma la gën a xam gën laa firil sa gént. gént en général ki la xam dëgg situation moo tax nag foofu laay profité joxe waale benn occasion bu neex. gis nga ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi boo ko bëggee gént mhm. taxol ak moom taqool ak moom ci lan di ko bàyyi sa xel mhm. di ko xalaat lu bari mhm. di ko yendoo xalaat di ko dund wallahi bu yàggee yàlla mën na laa xéewalal nga gént ko ak bari luy julli ci moom sallallahu alayhi wa di ko xalaat yaa ngi dégg loolu bokk na ci loo xamante ne nii yàlla subhanahu wa taala mën na laa jàppale <laughs> benn gardien de benn gardien de <laughs> benn gardien. Mm. patron bi daa ñëw mu bëgg lu neex patron bi mu naan ko patron biig damaa génn nga am ay milliards <laughs> patron bi daal koy woo daal koy <laughs> ah. ah, moo war a garder. moo war a garder bi guddi gi. Ah, mu ji mm-hmm. du garder mu ngi noonu ah jamin. kon Amina. Mhm. Euh, bëgguma gën a dugg ci détails yu gént yi. ak yéen mel mais gént daal lu am la. Mhm. gént lu am la yàlla moo ko def. Mhm. gént dafa am. yaa ngi dégg te xéewal la ci xéewali yàlla subhanahu wa taala. macha allah leer yi am na solo léegi beneen question bi mooy fii yaa ngi wax ni papa ji da wax laa takk kusuru yaa kan laa ixwatika ba pare. Euh, mu wax ko ñi xaw ma nan la nan la doom baayam yi def ba mm-hmm. yëg affaire bi ba bëgg koo fexeel léegi mm-hmm. moom dafa mënutoon te secret. Mm-hmm. wala da leen kaa wax wala. Euh, aywa Jamil. waaw wax fa dëgg yàlla tamit am na solo. ndax ku xool texte bi nii ci kaw. ni boo ko wax say frère dañ lay pexeel. après ñoo gis frère yi di leen pexeel waaw di nga posé question est ko wax. non non waxul frère yi. gént gi waxu ko waaye papam bëgg gi mu ko bëggoon. Mm-hmm. gënoon koo jël taf ko ci kanamam. Mm-hmm. loolu moom moo poussé frère yi boo xoolee yàlla mu ngi ko junjaale ci biir laaya yi. Mm-hmm. is qaalu la yuusufu wa axuuhu ahabbu ila abina minna waaye xamuñu koos bi lan la. xamuñu cause bi lan la. mais gis nañ daal seen papa dafa dafa gën a napp ci yuusuf ak rakkam. loolu moom moo waral mais yuusuf ndigal la ko papaam waxoon moom la jëfe waxul frère li nga xamante ne nii moom moo di. géntam mu ne waaye tamit gis nga la tax suuru yaaka mooy li ma leen doon wax sànq ci gént gi mhm. ngir yàlla boo géntitee lu ñàng lu dal sa kaw boo yeewoo bul ko nettali mhm. dañoo wax ne da ngay yëkkati sa loxo càmmoñ mhm. sa fàmb yi foofu nga ëf ko ñetti yoon yaa ngi dégg nga wax yàlla yàlla nga mu musal ci gént gi ma gént yàlla bu mu yàq sama àdduna yàlla bu mu yàq sama diine leer na mhm. soo géntee gént gu ñàng mhm. soo yeewoo da ngay yëkkati sa côté càmmuñ fii mhm. nga ëf ko ñetti yoon daal di wax ni yàlla yàlla ma musal ci gént gi ma gént yàlla bu mu yàq sama àdduna yàlla bu mu yàq sama diine bu fekkee ne xam nga ab firkatu nga wax ko mu leeralal la ne la nga dem nga saraxi nga daal di saraxi bu dee gént gu baax nga gént contraire bi ngay def sa côté càmmoñ fii ngay yëkkati ëf ko ñetti yoon gént gu neex daal di wax ni yàlla gént gi ma gént yàlla nga ma koy indil mu nekk jàmm ci man yaa ngi dégg loolu nañ ko jàng xam ko su ko defee ñu koy jëfee. léegi même boo xamee ko xamante ne day firi génn da ngay saraxe ba pare soog koo wax da nga koy wax déedéet ngaa dem mu firi la ba pare après nga ko fenn. Mhm. fii Sénégal ñoo commencé saraxe ginaar loo saraxe li nga nga mën ko def ko. Mhm. aywa mu ngi noonu am na solo léegi question bu mujj bi. Uh-huh. mooy damaa seetlu ne alxuraan dafa bëri ay ay xista ay histoire. comme Mariem. Uh-huh. Youssouf nii Moussa. léegi lan moo lan moo làkkatu si biir daal. ban sirru moo ci nekk ban secret. waa <laughs> Jamil boo xoolee alxuraan. Mm-hmm. alxuraan juróomi mbir la détaillé. Mm-hmm. yàlla kenn la. Mm-hmm. ak kawnu bii di wane ni yàlla kenn la asamaan si suuf si géej gi joor jeeg nit ñi. di leen yàlla binde doomu aadama ci lan la jóge ci ndox. ndoxu man yu ci la doomu aadama jóge yaayam ëmb ko neuf mois imbi ko. muy màgg di raam di dox di màgg di am ay we mhm. ñuy dagg ba mu juddoo ba léegi yaa ngi dagg say we am na ah. ñuy yar yaa ngi dégg mhm. ah, sa kawar ngay watu muy mhm. ñëwaat am na ñu dul watu am ne nii kenn mënta fexe bañ wat seen bopp bi yaa ngi dégg ah, kii sama wet ci la bokk yaa ngi dégg mu ngi noonu ah yooyu noonu yàlla subhanahu wa daf cee waxtaan ci alquran muy ñaata ñaar ñetteel bi alquran dafa détaillé lu ñuy wax charia ku sàcc ñu dagg loxoom ku njaaloo téeméeri yar yooyu noonu azaka woor weeru koor yooyu alxuraan waxtaan na ci. yooyu nag moo ci gën a tuuti ci alxuraan. muy ñaata ñett ñett waa ñeenteel bi mooy histoire yooyu nga wax yi nga laaj. Mm-hmm. histoire yi nag moo ci ëpp. Mm-hmm. léegi lan nga ma laaj ban sirru moo ci nekk ban secret. waaw histoire day defar nit. Mm-hmm. histoire. dafay defar nit. nit am na noo koy nettali benn jaar jaar rek. dafay jaaree daal di jub. daal di baax beneen bi histoire boo mënti gis ci àdduna xew-xew boo mënti gis. am na lu ko waral avant muy am ak bi mu amee ba pare lan la fañ muñ mujj masalan yonent yàlla Moussa tëbul tëb dem ci Firawna na daa bew yàlla yónni Moussa kon bépp président bu beew rek na xam ne yàlla dina la envoyé ab Moussa Moussa yi ak ñoo bari <laughs> ba yomen xeyam ay Moussa dañuy ñëw président bu toog rek mhm. ah bis bu bu bis bu naree xëtt xëtt sarti dëkk bi rek mhm. yàlla dina ko envoyé benn Moussa ah loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax léegi nag Firawna ak Muusa fu ñu mujj Firawna lu mujj def daa lap mhm. daa lap bépp njiit mhm. boo xamante ni nii da ngaa nar a xëtt sa charte dëkk mhm. yàlla envoyé la ab Muusa nga bañ doo bàyyi fa Firawna mujj ngay mujj doogu gàcce léegi nag yàlla moom ah euh, ay façon rayam daa bari waaw ah na mu rey Firawna labal ko yaa ngi dégg noonu lay daane la keneen fa mu lay ñëwee doo ko xalaat mu ngi noonu kon alquran dafa bëri ay xissa xissa yi dañoo bari mu nekk yoo xamante ni nii ah yu jara bàyyi xel la sirr bi daal mooy yàlla daf ñu ko nettali pour ñu ciy jàngat di ci xam bu la nettalee dara nga jàngat ci ba nga xamante ni yow doo fa tàbbi loolu ñu wax ni rek exemple nit koo xamante ne ni jaar na ci ab jaar-jaar ba ñëw. xam kooku moo la gën a mën a wax mbir mi lan la su ko defee nga daal di moytu macha allah. macha allah am na solo yàlla nañu yàlla may dégg ak topp. ba comme ni nga ko waxee nii rek ñu jàng si lu bari. bari bari bari te incha allah mbuy jàng lu bari. incha allah tabaaraka taala amiin amiin amiin amiin Yusuf nag. Sénégalais Yusuf boobu dañ ko teg bi nekk ci télé bi. Ah. waaw naan ne Yusuf dafa rafet. mais ni mos nañoo gis Youssouf dañoo ragal yàlla ñëw mi ngi noonu daal yàlla nañu yàlla jàppale bu baax te lépp luñ fi dégg rek mu nekk loo xamante ni ñu xam ne alquran la ñuy nettali hmm. euh, yàlla moo ñuy nettali ndax naqussu alayka ahsana al xasas hmm. waaw loo xam ne fekk wuñ ko woon nettal na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu ñu man man cee jaarat insha allah hmm. euh, ñu ngi noonu yëkkati jotaayu jotaayu alquran tey Euh, mu nekkoon émission bu am solo fii ci Dakar Buzz yaa oustaz lan ngay tàggatoo. wallaahi xanaa di la jaajëfal Cheikh Amar. di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekkee ak tal. ba ñu eggale xisa bi ci biir weeru koor gi. yàlla mën na ko dinañ ko defee noo xamante ne incha allah. rabbi da nga ñaanal balaa koor gi ma balaa koor gi man maa ngi soog a xam importance su takk soxna ci koor gi laa ko xam taajal sa bopp ndogu dafa métti quoi. <laughs> yàlla baax na da ngaa parewul pour takk. ah moom chaque jour sax parewul la daan wax. waaw gis nga mu ngi ko xiir doom ne pare na ko jàpp xaw ma daal. ah xaal ah. yàlla baax na ah yàlla yàlla barkeel. <laughs> loolu de moom ay naa ci lool. ma ne ñaari la ñu waroon woor. <laughs> aywa jaajëf yàlla yàlla barke ah. la lañ wax fa dëgg yàlla taxaw yow nga ñëw toog ñu defaral la sées nga toog yaa ngi dégg yow nga toog ñoom ñu daal di taxaw nekk ci affaire yi ah métti mm-hmm. na wax dëgg yàlla bu ñu paree defar ko ba mu rafet mm-hmm. daal di koy jàllale duñ ci sax feeñ yaa ngi dégg nit ñi bu ñu ñëwee yow mi yow mi doon wax la ñuy ñaanal yu ni mel yéen ñii seetaan bu leen di fàtte caméraman day leen ñaanal ah mm-hmm. aywa mu ngi noonu macha ñi ci réew mi nañ bàyyi Moussa nañ yi nekk ci réew mi nekk ci réew mi di xel yi nekk ci réew hmm, yàlla Moussa yi à tout moment mën na koo indi ci fépp nag mën na ko indi Burkina wala Mali wala mu indi ko Sénégal mën na sax wàcc Sénégal wala Guinée waaw bàyyi leen xel Moussa yi daal waaw macha allah am na solo di ñaan yàlla may ñu dégg ak topp hmm. euh, liñ fi waxtaanee rek yàlla na nekk yiw ñu bokk ko ñun ñëpp di si dëng rek ñu xam ne nit matut di di remercier Mame Fatou borom mm. Salihat Hijab nga mm-hmm. xamante ne mooy tànn ko lii gën a rafet jox ma ne ma muurul mm-hmm. euh, di leen jox dig daje beneen yoon incha allah merci beaucoup macha di sama ñëwkatu jàllaak bi may jaay jàllaak yi <laughs> yal na ah, maa ngi nuyu ma ñëwal lii macha allah monsieur le cameraman madame la ah. cameraman <laughs> grand frère nekk fële ca marché Yoff incha allah incha rabbi moo jaar fi ah. ah moo waaw macha allah yal yàlla barkeel incha allah <laughs> kon ñu yëkkati jotaay bi ba beneen yoon ci beneen jotaay alquran asalaamaaleykum